nag drapeau baa ngi waaj daanu bi daan na drapeau bi daan na drapeau bi daan na pam ñu ngi moo war magistrat dóor na ko mu a lu ñu waaye du ma leen tamit dóor nañ ko mu daal di génn magistrat na monté par ñi ngi bàyyi yàgg na kaa def yaa Medina ñëw na Dumayeen ñëw na Daaru Xudoos ñëw na Auguste ñëw na Masor ñëw na Alfaat waaye li ñu yaakaaroon ne waaye ki réew dañuy dóor benn defuñu ko magistrat génn na monté par Pape Ngingue deuxième position Doumayen monté par Fallou Diop troisième position Medina monté par Siri Sow quatrième position ki nga moo fa nekk moom mooy Mazor cinquième position Alpha sixième position Aris waaye Darou Sam moo tiré pas yëpp am déclaré forfait. ndeysaan lay magistrat moo génn ba c'est magistrat qui mène le peloton civil de Doumayen civil de qui vient en troisième position et le cheval major ensuite Auguste qui qui vient de fermer la marche dans le côté corde aussi tamit xas euh, yi nga xamante ne moo génn ba tey moom lañ leen wax moom mooy magistrat monté par le jockey euh, Papa Ñing góor magistrat génn mu ngi ci tournaalu xombal bi war a uti tournaalu Goléré Couture en deuxième position Doumayen moo fa nekk ñi si des ñëpp dañoo groupé si diggante Médina Major Alfat Auguste mi leen rawoon bu mujj bi ak Daaru Sam mi leen sàmm ñu ngi nii tourné si tournalu góoral côté bi ñëw jàkkaarloo tribune bi toujours Daaru euh, magistrat moo génn Pape ñu ngi moo ko war. magistrat génn fils de Kéa euh, fils de Warxoes petit fils Amina Brodo. Peter moom mooy maamam waaye dumayen fi mu toog baax na ak Fallou Diop à son extérieur Médina fii de soleil de minuit et Daaru euh, Daaru Khoudoss seen naa ko Mazor seen naa ko tey Auguste ci euh, parcours am baaxul tey tey jii lu mu def ci course bi rek jàppal ne moo mooy moom mooy moom moo mën fas fas yi bu leen rawee waaye magistrat génn na ba léegi monté par Pape Ngingue. magistrat génn na tournée fi nga xamante ne mooy tournal professeur Sakhir Thiam fii bi de du ma leen song na magistrat du ma leen song na magistrat waaye magistrat bàyyiwul du ma leen déposé na ko descargo parc nos jeunes parc nos jeunes danseurs seet naa xamante ne mooy Alphate mu ñëw en deuxième position développé waaye Auguste ñëw si kawam Auguste Sirion Théophilo Galileo Sadosvel nos jeunes waaye nag Major déclenché na ànd ak ki nga xamante ni mooy Alphate ñu bokk jóge benn écurie waaye Daaru Saam jaar ci kaw APS bi Daaru Saam jaar na ci kaw apayage bi waaye ki ngeen na mooy duma yéen Nozon Park deuxième position Auguste Souriant troisième position Alfat Daaru Saam jaar na ca kaw moo ngay déclencher di ñëw Medina dig na complètement Mazor moo ngi ñëw Auguste dal na ci kaw ki nga xamante ne moom mooy duma yéen Cheikh Abdoulaat laay ndoy duma yéen ak Auguste ñoo ànd ci tournalu Goloré Couture bi tourné jàkkaarloog nit ñi actuellement Auguste génn na laay ndoy Auguste génn na ànd Mator ñooy troisième position Darou Sam moo fa waaye Laye Ndoye Auguste nii di téye si deuxième Duma Yeen Auguste Laye Ndoye doomu Syria baa ngi noonu Théophile premier Auguste deuxième Duma Yeen troisième Darou Sam quatrième Alfat cinquième Mator moo fa toog Laye Ndoye. wax nga dëgg cinquième Mator sixième Medina septième Magistrat moog Darou Khoudoss ñaar ñoo nii di téye góor a jàmm dinaa la xawal benn mbir de Auguste mii <laughs> wàccagul naaru góor de tey mu raw fas yéene wàccagul naaru góor yi. na gis tey daan na deret ren dafa dafa baax macha allah préparation bu ci boo xoolee dawalin bi dafa changé ndax mun jaay nee naa la jockey bu mag la day mën a dem te du dem te fas.